mbokk xarit ñu ngi rafetlu ànd bi ak kóolute bi ak télévision Mourabitoun ñu fas yéen ñëw yéen ci xibaar yi. jeexalituug ndaje ak liggéey bi ñu amaloon ci Nouakchott ci lu jëm ci wàllub euh, sécurité immobilière ci biir ak réew mi ci kaw euh, jàngat biñ doon amal ci tëralin yi ñu amal ci wàllub yoon ngir mën a aar fànn woowule télévision al mourabitoun di amal ndajeek xarale ci Nouakchott ci teewaayuk euh, juróom fukk ak juróom benneeluk yoonuk indépendance uk réew mi ñu doon waxtaane jàmbaar yi nga xamante ne nag ñoo fi doon xeex indépendance forum ak borom xam-xam yi ak ñi nga xam kon ah, ñooy sargal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon amal pëlal ci Nouakchott ngir gën a tàgg ki nga xamante nag moo di sang bi alayhi salaatu wasalaam ci teewaayuk fukki fukki ay borom ak xam-xam ci wàllub diine mbokki xarit yi dale nag jàmm ci ëttuk xibaar yi njeexantaluk pëlaluk liggéey uh, ci Nouakchott uh, ñi ko fi uh, ñu ko doon amal ci fi nga xam moo di këruk attekaay gu kawe gi nekk ci Nouakchott ñu doon waxtaane ba sécurité immobilière ci réew mi ci kaw jàngat bi nga xamante nag moom lañ doon amalaat ci yoon wi ñu ko tëral ci ba loolu nga xam kon moo di sécurité immobilière yooyu le wante Ah, li nga xam ne moo dik charte yi xam xamante ni nag jot nañ koo lal ngir gën koo mën a aar ci fànn woowu wante ah, politique ki yeesal yi nga xamante ni nag jot nañ ko cee amal ah, ngir mën a taxaw ci rek sàmm fànn wo nga xamante ni kon bëri na ay xiiroo ak ŋaayo ci loolu ki moo dik njiitum këroog attekaay bu kawe gi nekk ci réew mi di Yaqfa'ul Mouhamed Youssouf di xam ne ne nag xiiroo ak ŋaayo yi nga xamante ni nag mooy am ci wàllub immobilier ci réew mi bokk ci li nga xam ne kon moo gën a sonal ñi nga xam ñoo fi yor wàllub yoon wante mu mel ni nag bokk na ci dossier yi nga xamante ne kon ñoo gën a lëj ci dossier yi nga xamante nag moom la yoon euh, di topp euh, ci jamono yi te loolu nag da leen di gën a indi jafe-jafe ci fànn woowule ki nga xam ne moo di jëwriñ ji wax ci turu nguur gi di Mouhamed Lamine Ould Cheikh di xamle ne nag nag mbooloo ko réew yi nga xamante jalgati ci ñeenteelu ka ndaje ah, arab Afrique bi nga xamante nag moom lañ doon amal ca Malabo ah, ñoom nag mënoon nañu bañ jalgati jotaay bi ah, ndax nag réew mi nga xamante ne nag moo leen tax ñu jalgati kenn woowu leen wante sax mujjewuñu teew foofule Ould Cheikh di xam ne nag réew Mauritanie dafay sàmm gis-gisu ko yi nga xamante ne nag uh, ñoo jot jalgati teeluk uh, ndajeek uh, arab Afrique bi nga xamante ne nag moom la ñu amal foofule ca Malabo wante fexe nañu ba rek sàmm itam gis-gisuk réew yi nga xamante ne ñoo fa desandi ngir mën a gunge liggéeyuk ndaje moomule xam le na ne nag mbooloo réew yi nga xamante ne nag ñoom ñoo jot jalgati loolu nga xam moo dikk ndaje mi bokk na ci réew mi di Maroc moom nag jot naa jalgati loolu nga xam moo liggéeyu ndaje mi foofule ca Malabo ngir naqarlu euh, mbokkuk réew bi nga xamante nag moo dik euh, Polisario ci leneen ci xibaar ñu ñëw ak yéen ci lël am solo gi nga xamante ne moom la télévision Al Mourabiton amal euh, ci fan yi mu daal di rek fego ak teewaayuk juróom fukk ak juróom-benneeluk indépendance uk réew mi Euh, mu doon ab lëluk xarale gu nga xamante ne dañ ci doon euh, waxtaanee jàmbaar yi nga xamante ne nag doon xeex wàllub indépendance ñu amal ko ci teewaayuk ay gëstukat ak i professeur d'université ci réew mi euh, ki nga xam ne moo di directeur uk télévision bu Rabiton di Moulay Ould Brahim di xam ne nag lël gi dinañ ko amal ci diiruk ñeenti fan fas yéene ci waxtaanee ci nu mu gën a rafetee wante ci nu mu gën a seetee ngir rek mën a taxaw ci rek mën a teg ab jumtuwaay bi nga xamante ne dinañ ci mën a sukkandiku ba bindaat li nga xam ne moo dikk histoire réew mi euh, ci nu mu gën a rafetee wante ci kaaraange ci leneen ci xibaax ñu ñëw ak yéen ci forum bi nga xamante ne nag moom la ulama yi amaloon ci réew mi ngir tagg yonente bi ah, sallallahu alayhi wa sallam mu doon ab lël gu nga xamante ne ñu ko amaloon ci Nouakchott ah, ci ñu amaloon ko itam ci teewaay ay ulama yu takku ci biir ak réew mi secrétaire général forum bi doonoon ab jëwrin ju njëkk ci réew mi di Ahmed Fall Ould Saleh di xamle ne nag diine ji kenn mënuk sàmm lu dul ci rek euh, ñuy tagg yonente bi euh, saa su ne ndax nag tagg yonente bi dafa bokk ci topp li nga xamante ne nag moo dik ay tànkam ci mbirum Palestine la ñuy terale yen fi nga xam moo di capitalu ko Bosnie jamono yi nag mi ngi dalal ab ah, liggéeyu ko foire bu rëy bi nga xamante ne nag palestiniens yi ñoo ko fa daal di ko exposé daal di ci rek ah, wane li nga xamante ne kon moo dik seen i ah, jafe-jafe yi nga xam moom la ñu ko jànkonteel ci kanamu ko fitnaal nga xamante ne nag réewum sioniste yi mi ngi leen koy fitnaal ci foofu nga xamante ne nag moo dik seen i dëkkuwaay loolu nag tax ñu amal loolu nga xam moo dik bi jaarale ko ci fi nga xam kon moo dikk Istanbul uh, fexe ba wane ay uh, tableau yi nga xamante ne nag dañuy tee daal di uh, leeral li nga xamante nag moo dikk seen ko dundu wante li nga xamante ne kon moo dikk jafe wante fitnaal yi nga xamante ne nag ñu ngi leen koy fitnaal ginnaaw noot bi nga xamante ne nag réewum Israël mi ngi leen koy noot ci jamono yi mbokk xarit yi fi la ñuy euh, terale ak yéen ci seen xibaar ñu def lu dellu seek yéen ci boppi xibaar yi njeexantalu euh, ab liggéeyu lël ci Nouakchott ñu ci waxtaan li nga xam kon moo di sécurité immobilière ci biir réew mi ci kaw njàngat mi ngi ci doon amal ci tëralin bi ñu amal ci fànn woowu ci wàllub yoon ngir mën ko aar télévision wal muhaɓe toon haadi amal ah, pelelu ka harale ci nokshot mu tollook ah, juróom fukk ak juróom benneeluk yoonuk ah, indépendance fàttalikuk bésuk indépendance ci réew mi ñu ci doon waxtaane li nga xam ne kon moo di jàmbaar yi nga xam ne ñoo fi doon xeex indépendance forum bi nga xamante nag moo ëmb ulama yi ci biir ak réew mi di amal ab lël euh, ngir tàgg yonente bi sallallahu alayhi wa euh, ci teewaayukaay ak fukki fukki ak borom xam-xam ci wàllu diine. mbokk xarit yi fii la ñu yam ak yéen ci seen i xibaar duñu def lu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci leneen ci xibaar di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi